bismillaahi tee ma jóg way fi gan gi leen file way soxna jaara moo bismillaahi tee ma jóg way fi gan gi leen file way soxna jaara moo bismillaay tee ma jóg way te ganu gëléem këlewaay njooma joomalul boppam soxna jaara moo dib day ba muy del si di feeñaat te yaramu a def aw ndaw soxna jaara bugi yoon ko mbindeef yi tey duñu bépp waaye yu nga teewee nga te forox nga te foog nga dellu noppi di selo yow la yàlla jox barke boo defoon su xab cuune doon woon ki nu wóolu doon la toj xajul ci biir soxna jaara la nu wóolu boo su xab cuune doon woon ki doj la doj xajul ci nen soxna jaara la nu woolu boo defoon suq ak cuune doon woon ki nu woolu doj la doj xajul ci nen woolu mës la julli te jàppul mës la weer te ñaanul دور خسنا أم تبدالي وركم بوبت نويجي أي دكالو نويجي جاكي جينا سوغنا أنت يا أي بكم تعالى أنت ممارب نويجي أي دكالو نويجي جاكي جينا سوغنا أنت يا أي بكم تعالى أنت ممارب loola waral sëriñ gaawaan ay jaamam jaam gaawaan di rakki bamba jaamam jaam say la baatin moo waral mu am xaadi soxna jaara aaye doo nga yee fay dañ la rami di dur waaye du ca gaañ jaara su aaye dojee parakaaju dañ la rami di dur waaye kenn du ca gaañ loolu waral borom gaawam di rakki ba jaamam jaam seyir la jaam baati moo waral mu am xaar togg di yàkk di yenuy jébbal tala anta dem rooti doo nga xëy ca ba soxna jaara moo sellal soxna jaara yaa bënn géej mbamu laa nga naan walwal déggatoo fi kenn ku mar daa ko gantu bay bañawal waane wal mi dem na fu ni nga ji ceeba day tarale yéen a ngoo ñi gàntu duute baab la ñépp lay dimbale waane wal mi dem na fu ne nga ñi cee ba day dalale yéen a ngoo ñi gàntu duute baab la ñépp lay dimbale waane wal mi dem na fu ne nga ñi cee ba day dalale yéen a ngoo ñi gàntu duute baab la ñépp lay dimbale soxna jaara bu aaye dome pana kaadu dañ dara yi tey loolu waaye kenn caagaañu Cheikh Muntaxa Cheikh Muntaxa Cheikh Muntaxa Cheikh Muntaxa si gal na maamam ja soxna Jaara te jox na ko cër moo tax mu faree salaat barab baag ko waar Cheikh yokkaat guddaay ba ca kaw yaatal ko doli koptaar booba kopp na xel xanaa ñu dem fa siyaar kenn dootu dem di siyaar maam soxna jaara di laaj ci wet mu far lampam ba moo koy gindee ba kenn dootu fa réer ma ngel wa leeru dina xaddi saa man ba fa ngor leeral yaa ngay bokk gandoo ba mel ni àjjana far nuurun ala nuurin min nuurin ci lawi leer làmpa ki jant ki weer fu nu daje bokk di leer soxna jaara yaa di jant sëjey làmp doom ya di weer si amun taxaa yaay ko recepteur ñoo nga dolli ki leer man soxna jaara yaa di jàng so jey lamp doom ya di weer Cheikh Muntaxa yaay producteur ñu nga dolli fi leer allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim al-faatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله